bonsoir à toutes et à tous dalee nag jàmm seen émission le rendez de Sénégal 7 c'est reparti euh, du lundi au jeudi kon ñu koy defee euh, sa su nekk au niveau de Sénégal 7 seen rendez-vous bi nga xam ne moo leen accompagné du lundi au jeudi di waxtaanee bépp thème euh, d'actualité tey nag ngir waxtaanee lépp rek loo xam ne ñeel na actualité bu réewu Sénégal je reçois sur ce plateau monsieur Moustapha Diakhaté il est l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar salaamaaleykum honorable waaleykum salaam wa rahmatulah soxna Diop maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di nuyu waa groupe Sénégal 7 bi yëpp di nuyu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi nuyu seetaan di ñaan yàlla waxtaan wi ñu teg ko ci dëgg ànd ak teggin tam am njariñ tam amal njariñ askan bi allahumma amin euh, ñu dem euh, par rapport à l' bi nga xam ne moo défrayé la chronique mun nañoo wax ne semaine bi passée ak biir euh, semaine bi yëpp moo nekk l' affaire Ousmane Sonko ak Adji sax fi masseuse boobu féetee ci institut de beauté boobu ñuy dippee Sweet Beauty gannaaw rek ba mu porté plainte ki nga xam ne mooy njiit bu Pastef jiñ ko li nga xam ne mooy viol ak menace de mort ñu gis ne carrément ba affaire bi commencé gis ne le président conférence de presse euh, di jéem a seetal boppam ñu gis ne aussi euh, beneen camp bi ñii di féetoo foofu la si aji Sarr ñoom benn mutisme la leen def par rapport à cette situation ban lecture ngay def si euh, mbir bi nga xam ne moo dox si kii nga xam ne mooy aji Sarr ak kii di Ousmane Sonko est-ce que da ngay rejoindre ñi nga xam ne dañoo jàpp ne thèse du complot moo am si bii l'histoire jërëjëf yëf yi boo ko dee jàngat li nga ci xame mooy Sénégal du réew mu normal mm-hmm. Euh, Lucien Anta Diop dox naa Sénégalais day dox ba yàgg mu taxaw naan ndax yor naay tànk loolu ba léegi moom dal mooy réew mi dafa normalut gis nga boo demee États-Unis dem France Canada bis bu yàlla sàkk jigéen jiñ fa góor guy def politik ne daf ko violer wala agression sexuelle wala tentative d'agression sexuelle kenn du ko defee fu politique ki ñu ko jiiñ rek moo koy assumé ndax ci li ma jotagul dégg mooy aji saar di doomu Sénégal moo porté plainte Ousmane Sonko di doomu Sénégal ne def ko violé loolu mbir moom ñett ñii rek xam dara yàlla mi dara umput Adji mi jiiñ Sonko ak sonk mi ñu jiiñ bis penc nag yàlla dina ko mun naa leeral waaye nag dina àggaguñ ci bis penc bisu àdduna moom la war a ñëw fi mu ne nii mbir moomu kenn rek ko war a leeral kenn rek moo ko mën a leeral muy justice moo tax ma jàpp ne ñaari rëq-rëq am na ci côté bi benn bi ci gouvernement bi la jógee le fait ñu jël ñu woo Sonko convoqué ko te lëmewuñ immunité parlementaire loolu faute la ci pouvoir judiciaire faute la ci gendarmerie parce que député mënee ko gendarmerie police amul sañ-sañu wax ak moom lu feek dañoo lever son immunité parlementaire mm-hmm. loolu mooy benn mm-hmm. Ousmane Sonko ci boppam jàpp naa ne aussi def na ñetti faute bu njëkk ba mooy mm-hmm. moom lañ porté plainte intuité maanaam Ousmane Sonko doomi bàyyam moom kese moom lañ porté plainte ci wéyal parce que plainte bi porté wuñ plainte passive moom mu def ko yëfu politique jàpp naa ne loolu rëq-rëq lu mel noonu doo ko gis bu ko fu mel ne Europe beneen bi ci des mooy euh, en tant que député jàpp naa ne barab ba mu dem ba lii fekk ko fa euh, mënoon naa ñàkk rawatina ci lay wi munu jox ne moo ko fa tax a dem man da gëwuma ko un gëwuma ne benn docteur moo ko wax mu dem foofu parce que ñooñu du ñu ay docteur te lim ne moo ko dal ba mu waroon ko opéré donc ñu xam ne bu ñu ko opéré mën naa garaaw fa ko docteur di yebal mooy foo xam ne bés maanaam bésum faj lay doon alors que ñooñu loolu du seen liggéey kon bi ci des mooy en tant que député wax na ne euh, maanaam ñàkk xaalis pour mën a fay lu bari moo ko fa tax a dem loolu aussi dafa lënd ndax assemblée nationale bu fekkee da ngay nekk député sooy faju quatre-vingt pour cent yi li ngay fay assemblée moo koy fay su fekkee dañ laa hospitaliser assemblée nationale mooy joxe cent pour cent kon wappam jooju bu ko assemblée na bu demoon fa ñu war a fajoo maanaam docteur bi ko bi ko bi ko yebal bu ko yebalee kinésithérapeute su demee quatre-vingt pour cent yi assemblée moo koy fay bu ñu ko war a hospitaliser assemblée nationale mooy fay cent pour cent yi mm-hmm. kon jàpp naa ne politiser ko ak li lay li mu lay gëma ne ndax salon boobu boo boo liiree boo duggee seen site bi la nga fay gis mooy salon bi dañ naan la ay xale yu jigéen yu rafet daañ ñoo lay accueillir jàpp naa ne xale yu jigéen yu rafet yooyu jànguñu kinésithérapie kinésithérapie ñoom docteur Cheikh Seck ñoo ko xam d'ailleurs ñoom sax nañ daañu porter plainte na mu tuddati kii na mu tuddati euh, comment il euh, euh, ndaw si bi ci des mi ngi tudd la thèse ji complot ne dañ koo comploté maanaam ni ma ma ni a dee ne Ousmane Sonko violé na Adji Sarr ni la ma wóor a dee ne gouvernement bi dugal na ci loo xam parce que ma firnde ci ne usmaan violé na noonu laa ñàkk firndi aussi ci ne gouvernement moo jël parce que indi wut indi indi jàpp naa ne su fekkoon ne gouvernement bi dafa ànd ak dal bañ koo convoqué te levé wuñu li ma gëm mooy coow lii du bi ci des mooy Ousmane bu fekkoon ne moom itam plainte bi ñu ko plainte te muy plainte jëmmam plainte naa ne coow lu du ci am bi nga xam ne def naa rëq-rëqam la aussi mooy appel bi mu def parce que moom ci conférence de presse daf ne permanence su parti bi la ñu waroon defee conférence de presse bi waaye dañ koo mujj bàyyi ndax ñu ay awakam dañ ko wax ne boo fa wootee nit ñi dañ ñëw dajaloo fa te dañoo tollu jamono yoo xam ne dañoo terem ndaje ci biir conférence de presse bi la wootee à la résistance yow mënuloo bañ a def sa conférence de presse ci sa permanence ba defee ko sa kër te ci biir conférence de presse nga wootee ne nit ñi nañ ñëw benn jàpp naa ne aussi bi nit ñi xëy sa ñëw lam leen war na mooy dem leen ñibbi ndax te jamono ji jamono juñ tere rassemblement parce que damaa jàpp ne boo nekkee député yow kuy moyu violer ay ay règlement wala loi yaa ci war a jiitu kon encore une fois pour le moment daal jàpp naa ne coow yi bari na waaye nag mënoon naa bañ a bari su fekkoon ne dañ koy yemale ci proportion yi mu yem mooy ku dëkk Sénégal moo porte plainte ku dëkk Sénégal loolu nag tribunal moo ko mën a régler waaye du mbedd bi mhm. euh, honorable euh, doguma la sax sànq euh, yaa ngi wax di joxe exemple par rapport ak histoire de merci yi nga xam ne da nga koy gis un peu partout à travers le monde gis neen Europe aux États-Unis même sax seen président yi dañ leen toppee loolu mais est-ce que ñoom seen politique ñu ngi koy defee ak politique réewu Sénégal c'est la même chose jiw jàppul ne kii di président Macky Sall dafa bëgg a jaarale fii nga xam ne moom la jaarale ak kii nga xam ne mooy kii Karim Wade ak kii nga xam ne mooy Ababacar Macky Sall aussi. est-ce que foofu nekkul aussi réponse politique bu di wax légitime suspicion maanaam Ousmane Sonko am na droit. Mhm. ñaaw njort. jàpp ne mag sàll bëgg naa utiliser justice pour sànq ko am na ci droit xamul tax jaar-jaaru Sénégal la jiitu na Macky Sall gis nga euh, rey nit ci politique jaarale ko ci yoon Senghor moo ko jëkk a def Sénégal te Mamadou Dia la ko donc il est dans son rôle aussi. non non xaaral maa dama lay lu war a mën a justifier mu ñaaw njort. am te kon pour le moment gisaguma benn preuve bu ma wan ne Macky Sall mi ngi ci parce que pour le moment il faut pas qu'on l'oublie Adji Sarr moo porté plainte Ousmane Sonko c'est-à-dire ah, li nga xam ne mooy les faits li am li nga xam ne moo am mooy plainte bi Adji Sarr porté plainte Ousmane Sonko leneen li ci des man gisaguma mais dama la wax ne am nañu sañ-sañ ñoom ñaaw njort parce que. 1962 président Senghor. mais est-ce que nekkul nekk ci gannaaw Adji Sarr moo tax ñu ñaaw njox. waaw mais xam nga xam nga yow jabaati kilifa bu nekk xam nga nga xam jëli ko ak 4 euh, tam aussi le jour des faits aussi. xam nga yow xam nga mhm. mooy bëtu askan mooy nopp askan. autrement lu amut waru caa wax lu amut waru caa wax maanaam lu mu ne dul baaraam rek la sañ a wax su ci waxul bu su waxul bu ne wul dul baaraam wax leneen boobaam mi ngi waxee xalaatam. wala muy waxee njot journaliste du waxee xalaat du waxee njot kon encore une fois le fait. li am a ce sont les faits. waxaat non non les faits est la plainte que Ousmane sonk a que nu mu tuddati Adji a porté contre Ousmane Sonko. léegi la 4-4 bu ko jël si. gisuma ci loolu xaw ma ci dara loolu amu ci benn xam-xam man li ma xam mooy porté nañ plainte Ousmane Sonko loolu man xam naa ko c' est un gis nga boo ma tegaloon kaamil ne ma waatal ndax Ousmane Sonko bu yore ni ko damay waat ne violé wu ko parce que rafet naa njort ci moom ci loolu waaye nag le fait mooy moom lañ porte plainte ci affaire viol li ma sànq ne la le fait que mu sañ a ñaaw njort ci ne dañ ko bëgg utiliser dañoo bëgg utiliser pour sànq am na ci droit parce que loolu dafa yàgg Sénégal 1962 président Senghor dafa jiiñ am Mamadou Diané daf ko bëggoon def coup d'état la ko jaar ba daane ko tëj ko ci kaso bi te bañu histoire dem na ba ñëpp xam ne Mamadou Dia musul waaj coup d'état parce que moom moo yoroon état bi kon Senghor la mu doon wax nit ñi ci bu dee wàllu Macky Sall bi fi toogee léegi dañoo gis ay jëf yu mu jëf yoo xam ne mën naa tax ay adversaire am ñaaw njort ci ne day utiliser justice contre ñoom bu njëkk bi mu faloo ba toog dafa dekkal CREI yi yi CREI nag ne ñëpp ñu dégg mu ne of CREI li ko tax a jóg mooy xeex njublan gi waa PDS yore woon réew mi of nag mu ne li ko tax a jóg mooy di xeex njubla gu nekk ci ñi nga xam ne ñoom la àndal waaye li ñu seetlu vingt cinq personnes yi nga xam ne ñoom la CREI jëkk bëgg a topp kenn lañ ca seppi sujet ko daan ko muy Karim Wade ñoo ca des kenn waxatu ci ñoom dara rawatina am na ci ñoo xam ne tey ñu ngi assemblée nationale yor fay responsabilité am na ci koo xam ne mi ngi ci euh, nam tuddati euh, gouvernement Macky Sall keneen ki ci des mooy Khalifa Sall UGF mm-hmm. topp def na ci inspection jëñ ko détournement de deniers publics ñu jàpp ko moo ki nit ñoo xam ne ñoo doon liggéey ci maire Dakar 2012 ak léegi mel na Khalifa Sall lañ fi jàpp ci maire te jàpp naa ne les 557 maires gëw ma ne Khalifa Sall rek moo ci def njublan li gën a garaaw loolu mooy ña nga xam ne ñoom lañ bokkoon boole woon ak Khalifa Sall jàpp ñu doon liggéey maire Dakar ba ñu leen libéré kenn ku ne dañoo dem delloo la sa place ngay liggéey fa nga toogoon Khalifa Sall ñàkk na am ñàkk député am beneen bi ci def mooy da ngay dégg toujours président Macky Sall mu naan je vais réduire l' opposition à sa plus petite expression. xam nga kuy wax loolu ak ak yi ma la tuddal sànq maanaam ni Ousmane Sonko am na droit ñaaw jot ci ne xal waa ji daf ko bëgg a sànq beneen bi ci des bu yàggul rek dégg nañ président 31 décembre mu toog mu ne Sénégal am na ñoo xam ne kenn du leen jàpp ndax bu ñu leen jàppee réew mi tàkk. koo xam ne da xalaate noonu bu bu bu bu bu yëngalee justice bu justice yëngutoo da nga jàpp ne mën naa am dalaa bëgg sànq waaye loolu lépp ay ay foog la. waaye li nga xam ne moo ne kër këtt ne jonn muy la fait mooy que Adji Sarr di doomu Sénégal moo porté plainte Ousmane Sonko maintenant Sénégal dañoo fonk di baatub jigéen Sénégal dañoo fonk di baatub jigéen bi ñu mooy Sénégal dañu am complexe opposition dafay bari baatub jigéen ci viol ñaare bu jigéen bu ñu ko violé dañ naan dañ dañ naan moo provoqué yëre yim solon daa seere taatu bi daa rëy moo tax ñu ñu ko loolu nag conception bu Sénégal yi am ci jigéen dafa feeñ ci mbirum Adji Sarr mii beneen bi ci des mooy mbirum Adji Sarr dafa feeñal ne Sénégal ku fi amut yu bokk wala nga amut tur maanaam mën nga am jafe-jafe loolu mooy tax fi naan ñàkk doole doy nag tooñ parce que tey boo xoolee day mel ne Adji Sarr mu amut moom moomul ndey moo jàkkaarloo Ousmane Sonko mu am ndey loolu daf feeñ loolu encore une jàpp naa ne du loo xam ne mooy gën parce que république li nga xam ne ci la war a sukkandiku mooy mooy yoon yoon nag ñëpp a ci war a yem malheureusement yëpp yooyu feeñut ci diggant ci ni ñu war ni ñu traité Adji Sarr or Adji Sarr moom moo porte plainte ndax wax na dëgg wala wax dëgg ci tribunal moo ko war a leeral Ousmane Sonko Ousmane Sonko ndax Adji Sarr wax na dëgg wala waxu dëgg kooku aussi tribunal rek moo ko mën a leer kon na une fois dama jàpp ne bu nu li nu bu nu defoon ndànk lii wolof di wax danañu dal mooy bu dë bu coow bare dëgg reer maintenant nag yëf yi. soo xoolee ñi nga xam ne dañ ciy wax ñaari te ànd ak Ousmane Sonko ñoom duñ ci wax dëgg xam lu tax mooy ñoom duñ wax ci mbir mi Ousmane Sonko ci Ousmane Sonko la ñuy wax ak baaxam ak ak gëm yàlla non débat bi déggul foofu débat bi mooy porté dañ ko porté plainte ndax liñ liñ ko wax moo ko def wala defu ko kooku tribunal moo ko mën na ñi nga xam ne aussi dañoo contre Macky Sall bu ñu wax dañuy jàpp ne moom moo ne ci ginnaaw te amul ku la mën a indil firnde ne loolu am na beneen jàngat bu ci war a jàng jusqu'à présent benn nit déggagul Ousmane Sonko mu ne yolleewu ma ko waaye léegi lu tax nit ñi ñoom bëgg koo bëgg koo ñoom raxas ba mu set te moom raxas mais il n'a pas besoin de dire doyen parce que déjà ci conférence de presse bi sax mun nañu wax ne ragg na gannaawam ba mu set ba tey ñu des ci conférence de presse Ousmane Sonko boobu nga xam ne euh, ñu mel ni yow dañoo jàpp ne dafa def appel à l'insurrection ci fameux fameuse phrase am boobu ne l'ultime le dernier combat wala l'ultime euh, combat est-ce que mun nañ ko reprocher euh, appel à l'insurrection parce que bu ñu gisee ne en aussi kii di président Macky Sall utilisé woon na ay mots yu demee loolu xaw ma ci dara xaw ma ndax daa defal appel li ma jàpp mooy contradiction bi ne ci Ousmane mooy bi muy tàmbalee conférence de presse daf ne li tax ma def ko ci kër gi dama ko doon bañ a woote ci permanence ba parce que dañ doon bañ nit ñi ñëw daje fa. loolu moo ko wax ci bi muy tàmbalee conférence de presse bi muy jeexal ma woote nee na nit ñi fippu foofu foofu erreur de communication la maanaam ndax daañ ko topp ci loolu loolu sama yónneeku ci man du ma du ma du ma magistrat du juge du sama yónneeku mais est-ce ñu ko toppee ci loolu aussi euh, thèse du complot bi nga xam ne ñu farandoo ah, Ousmane Sonko wala ñu ëpp ci Sénégalais ah, ah, euh, nañ jël nañ jël euh, rek ci les faits <laughs> nañ jël siwaat ci rek ci les faits def na appel wala deful appel yow lay laaj léegi maay laaj. Mm, lu appel kon wowut nit ñi ne nañu nañu nañu jéngu. non ah, la rek jéem naa ci ginnaaw pour man la waxatuma man ci par de fait <laughs> ginnaaw pour wax ne du wax ne pour man la journaliste fee rek la war a wax. kon nañu wax ci la nañu wax leneen dama ne non dafa ne dafa nag conférence de presse bi daf ko wax ci wolof wax ko ci français lii ma lii ma la wax léegi non lii ma la wax léegi lii ma la wax lii bu fekkee déglu nga conférence de presse bi dégg nga ko soo ko déglu dégluwut déggoo ko su fekkee déglu nga ko dégg ko ne sa euh, ni sa gis-gisu bopp la dama koy bàyyi yow. non non nekkul sama gis-gisu bopp. nekk si Ousmane Sonko lu mu wax fi laay jugé. lu mu wax mën a poser samay questions lu mu wax mais moo woowul nit ñi ne nañ ñëw jëngu c'est un combat mortel affaire bi bakkan la laaj ah moom moo woote loolu su ko waxul woon du ma ko wax man parce li wax damaa wax ci tàmbali ba daf ne du conférence de presse sama kër lañ ko def parce dañ doon bay mbooloo waaye soo bañee mbooloo mu daje tax nga def sa conférence de presse sa kër mais doo woo mbooloo mi ci suba sa nañ nañ nañ jëg jéngu nañ jaay suñu bakkan mais est-ce que mbooloo boobu bu ñu ñëwoon saafante aussi ak ki nga xam ne mooy seen leader Ousmane Sonko te police aussi amul benn euh, provocation bu mu def wala benn agissement bu agressif bu mu def aussi euh, jàmmaar loolu dina am ce jour là aussi non non dafa c'est-à-dire que nit ñi ñëw këram daje fa moom moo ko moom moo ko moom moo ko jëkk a bonal parce que moo ne day bañ a def conférence de presse bi te permanence parce que day bañ nit ñi daje kon warul nangu nit ñi daje këram di fa di fa saafante benn ñaar dañoo toll ci jamono joo xam ne dañoo tere rassemblement te nag jàpp naa ne député lu ñu tere moo ci war na ko mooy. mais loolu c'est facile ah gis nañ ne carrément euh, jamono a ko dénoncé benn pont fii au niveau de Yoff. Mhm. mars ak léegi dem ma fi ngénte dem ma fi julli collectif sax du ko def kon encore une fois jàpp naa ne guddi yi grand moom moo ne day bañ a def conférence de presse ci permanence am parce que day bañ coow day bañ mbooloo mi daje wër woon woote këram wala même bu fekkente ne ñëw nañ mun leen dem leen ñibbi maintenant am na loo wax ci police jàpp naa ne maanaam ndiiraanu police ga ci xëy dem fa loolu aussi mën naa indi jafe-jafe je crois que il aurait pu a wax un un ancien candidat à la présidence gars yor nañ ko ordonné waroon nañ ko mën a wane ko président Ousmane vraiment su fekkee bëgg nga jàmm dañu bëgg xale yooyu ñëw sa kër nga wax leen ñu ñibbi su ko defee boobaa moom mu gën leen dem leen ñibbi jàmm rek fi ñu ne ko kenn jël la xam nga euh, xam nga ça tout l'air moom du ci werante yow dama koy bàyyi yow. <laughs> ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waxtaan ba tey euh, honorable ñu gis ne aussi euh, le pape du soppi euh, suñu maam maître Abdoulaye Wade mm. affaire bi aussi artu na si mais ñu bëri dañoo jàpp ne kii di président Abdoulaye Wade dafa am benn position ambiguë par par rapport à cette affaire parce que man ko si ci cité nee na apparemment son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses mu mel ni aussi euh, manque de maturité politique bi nga xam ne ñenn dañ koy jiñ kii di Ousmane Sonko le président euh, Abdoulaye Wade moom da koo dëgglaat rek. Ah, Wade de magum magum magum politicien la moo xam ne ñaare def na politique lu yàgg yàgg waaye il n'a jamais été pris à défaut ci yu mel noonu ay ay ay ay ay viol affaire yu mel noonu même ay déclaration yoo xam ne sax mën nañ ko ci poursuivre sax Abdoulaye Wade daanaka da ko daan mooy. waaw loolu moom am moom amoon na expérience di wax loo xam ne dina du yo woon yomb ñu doon ko jàpp loolu bokk na ci li ko musal ci ci carrière politique am maintenant nag puisque dafa joxe son opinion dama koy bàyyi ak moom quoi waaw damay bàyyi ak moom c'est pas du ma du ma commenter ci lu sori ci waxam la parce que man Ali Kalaj ji mooy Adji Sarr moo porte plainte Ousmane Sonko foofu daal loolu mën naa ci wax waaye li Ablaye Wade gisee loolu loolu wax Ablaye Ablaye Wade bu wax la ci gis parce que dégg na Ablaye lenn moo ma ci mm-hmm. na lu mu tudd ne affaire provocation xam nga loolu ci ko xam sénégalais ni ñuy jàppee jigéen ça pose problème parce que sénégalais bu jigéen bu ñu ko violee la ñuy wax mooy ñaaree si xale yi seen yére yi ñu sol dafa day xat xale yi seen taat yu rëy ñoom xale ñooy provoqué xam nga sénégalais dañu jàpp ni jigéen bu ñu ko pro bu ñu ko siifee rek daa provoqué damay ja damay bañ nag Abdoulaye Wade damaa jëf ni quelque son niveau bi mu toll ak combat yi mu mëne pour la femme mu bañ a mu bañ a baisser niveau bi à à ce à ce euh, un viol peut exister comme peut mais tra considérer un un une un viol comme étant une résultat d'une provocation d'ailleurs parce que boo dégloo wax ji day mel ni sax daanaka nangu na parce que viol bi la bëgg a justifier ce ce qui s'est passé ce qui se serait passé entre Sonko or man xam nga euh, man da li ma jàpp tey boo ma tegaloon kaamil damay man ne waat loo ma te mënuma ñàkk a waat damay waat ne Ousmane Sonko koy jiiñ defu ko waaye nag lim loolu sama sama sama njort la ci Ousmane Sonko mais les faits li am mooy dañ ko porte plainte ka ko porte plainte Sénégal la ne moom fa nga xam ne mooy mbaxana doon benn fa lañ ko war a lijjanti muy justice maintenant nag justice ab député bala ko justice da dal ci koom dafa am dafa war am yu mu respecté malheureusement dans un premier temps la gendarmerie n'avait pas respecté ça jàpp naa ne li gen li justice mujjee su ko jëkkee woon coow li mën naa bañ agsi fii député du nitu caaxaan boo xam da ngay ñëw rek yónni police ne ko yónnee communication euh, kii convocation ne ko kay wuyu gendarmerie loolu loolu moom jàpp naa ne dootu am. Mhm. ñu dese ni ba tey euh, jàmmaarloo yu amoon euh, foofule ñu gis ne aussi euh, ñëpp dañ see def euh, benn lecture au-delà des membres euh, du parti PASTEF les sénégalais ñoom ñoo génn de manière volontaire est-ce que loolu warul créer benn déclic si bopp régime kii di président Macky Sall. waaw xam nga mbir mu ne xam nga damay wax toujours ni y a pas de y de fumée sans feu loolu la di wax ah. mm-hmm. maanaam saxar saxar safara moo koy jur jàpp naa ne xale yi génnoon am te kon mënees naa jàpp ne wooteeb Sonko bi moo leen génne <laughs> jàpp naa ne ak mer ak peut-être jëppi nguuru Macky Sall bokk na ci loolu nag dafa laaj effectivement lecture daal mbir bu xewee danga koy da nga koy gëstu bañ a yem rek ci ne way Sonko moo manipuler xale yi noonu boo ci yemee foofu rek doo doo ci génn il faut nga dem une autre lecture euh, xool xool vraie motivation yi euh, ndax ñoom dañu ñëwoon rek pour aar Sonko wala dañu ñëwoon pour exprimer seenu mere Macky Sall ñaari lecture yooyu nga war def bu ko defee boo ko boolee booy réagir di nga xam lu ñuy lu ñuy def maintenant damay jàpp man toujours ne bu fekkoonte ne Ousmane ko convoqué wuñ ko man dama jàpp ne coow lu du am. une convocation illégale. illégale. Mm-hmm. illégale bu fekkoonte ne convoqué coow li ginnaaw nag ñoom dañu ñaanal ñi ko convoqué dama manière illégale moo indi coow li jàpp naa ne ñoom itam am nañu responsabilité parce que nag lu toll ni assemblée nationale am am constitution bi règlement intérieur bi aar bi. jàpp na ne ab gendarme nga xam ne dañ leen a tudde homme de loi ku ne war naa jalgati yoon ba mu des ñoom kon jàpp naa ne président Macky Sall war naa instruire l' état major euh, wala la gendarmerie pour ñu diligenter des enquêtes pour xam fan la faay bi amee. Mm-hmm. tout comme le ministre de la justice du war naa diligenter des enquêtes au niveau du procureur du parquet pour xam fan la su la faay bi amee parce que député mu ne mu ne su ko appliquer le code de procédure pénale et le code pénal tant que le wuñ son immunité parlementaire. parce que loolu constitution bi moo ko tëral kon encore une fois faute boobu ñu def pour convoquer Sonko te jaaruñu ko fi ñu ko jaar jàpp naa ne loolu mooy ali kalaj ji moo indi coow li waaye nag convocation beeg coow li am ci mbedd mi la ko la ko la ko sos mooy plainte bi Adji Sarr porté plainte contre Ousmane Sonko loolu nag jàpp naa ne moom Ousmane Sonko la porté plainte porté plainte taf euh, nam tuddati euh, Pastef boo xoolee sax waa Pastef parce que bu kii waxee lii keneen dindi ko encore une fois da dul seen problème problème mu Ousmane Sonko la intuité personnel yi maanaam Ousmane Sonko moom rek la concerné. Mhm. mais malheureusement Sénégal dañuy politiser loo xam ne c'est personnel di judiciariser loo xam ne c'est politique. loolu rafetul loolu baaxul ci démocratie. Mhm. honorable si say euh, biir wax euh, yaa ngi énuméré euh, failles yi nga xam ne seetlu nga ko si conférence de presse Ousmane Sonko bi par rapport ak thèse bu mu yëkkati si les deux cent mille francs CFA yi nga xam ne moo cheroon trop si moom ngir mu mën a suivre traitement bi yaa ngi wax à chaque fois au niveau de l' assemblée nationale quatre vingt pour cent ñoom dañ leen ko jël rek jéggal leen ko ngir seen wàllu paj. booy faju prix bi li ñu lay fay li ñu lay fayu. 80 pour cent yi assemblée moo koy jël. mais lenn benn question laa bëgg a xam par rapport à ça parce que bu ñu xamee affaire de massage mun nañu wax ne carrément euh, mbirum paramédical la est-ce que. assemblée nationale dafa jël en charge. loolu aussi massage du paramédical. koo xam da wopp ba ñu waroon a laa opérer ñu ne la boo bu ñu la opérer mën nga cee doxee la fañ docteur bi la defal gëstu boobu kooku du la yebal ci paramédical. Hmm. kooku ci kinésithérapeute la lay yebal. amul docteur bu ñemee yabal Ousmane Sonko ci ci ci salon de massage. amul massage bi nga xam ne euh, dafa am problème lombaire mënuñ ko classé. ci c'est euh, pas possible mënuñoo faj lombaire kooku affaire kinésithérapeute la. Mhm. day moo tax docteur Cheikh Seck bi nekk CTO ñoom ñu ne dañuy porter plainte salle parce que loolu du liggéeyam xam nga aji euh, Adja Ndiaye docteur bu la joxee ordonnance mhm. waxul nga dem ci ñiy jaay ñiy jaay garabu mbedd pharmacie la la yebal waxul ñi ñiy jaay ay reen wala yu mel noonu docteur bu la joxee ordonnance. waxu la nga dem jëndi ay reen pharmacie la yebal pour nga jëndi garab amul benn docteur bu ñemee yebal Ousmane Sonko ci lu ki dul kinésithérapeute par rapport ak wopp jëm ne moo ko dal te loolu daa jër sa wax maintenant bu fekkente ne nag assemblée ñoom yëg nañ ne loolu moo la dal soo demee fenn ba faju fa la war a fay quatre-vingts pour cent yi assemblée nationale moo koy jël c'est pourquoi la thèse de awma xaalis mënul taxaw parce que quatre pour cent na fay moo koy fay bu fekkente ne woon cent pour cent yi assemblée moo koy jël nekkoon naa député la quand même kon encore une fois jooju wax dafa taxawul c'est-à-dire que un mënuma gëm ne benn docteur moo ko fa yebal deux ñàkk xaalis tax mu dem foofu mënuma ko gëm parce que assemblée nationale mën na ko jël en charge kon encore une fois damaa jàpp ne xëy na dafaa demoon pour peut-être ba ba ba parce que même salle bi ña fa nekk du ñuy ñuy faj kinésithérapeute du ñuy kinésithérapeute ñooñu ba peut-être mën nañ laa massé sa kii mais loolu. loolu moom vraiment jàpp naa ne ñàkk respecté Sénégalais yi bokk na ci nga di leen jéem a gëm loolu mel noonu. mais est-ce que aussi bu ñu demee rek ak ñaaw njort aussi ñu gis ne aussi euh, kii di Ousmane Sonko moo nekk farouche opposant kii di président Macky Sall muy xam ne ne carrément sa maladie dafa sensible est-ce que nekkutoon aussi mu ne ko rangé rek dafa bëggoon bañoon waaye assemblée xam dossier. médical aussi kooku c'est son problème loolu duma ci tontu xam nga li nga may wax mooy ce qu'on appelle le conditionnel kii de précaution. Ah ah. ça mënu ma ci li ma mën a tontu mooy député bu feebar bu demee asam bu fajoo assemblée mooy jël quatre vingt pour cent. Mhm. su fekkee dafa hospitalisé wu cent pour cent lay jël. la tee def ko c' son problème. Mhm. c' son problème maintenant s' il explique que ñàkk xaalis moo tax mu dem fee loolu dama koy dàq parce que am na ku am na xaalis bu mu fajoo parce que assemblée am na budget pour loolu. d' accord euh, euh, honorable nekk nga député nekk nga président du groupe parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar. jeudi bi passé euh, la conférence euh, euh, la réunion des kii nu koy sax après la conférence c'est la commission ad hoc qui s'est réunie tey jii ngir rek statuer sur la levée de l'immunité parlementaire ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko député bu mel ni Thierno Bocoum ak kii di Mamadou Lamine Diallo bu tekki jàpp ne procédure bi fu mu toll nii dafa anti constitutionnel. fu ñu ko tënk ko rek ban ban argument lañ joxe ñoom. ñu ñu tënk ko rek si euh, constitution article soixante et un ak cinquante et un bu euh, règlement intérieur de l' assemblée. waaw ah, léegi lan est da ngay partager. xam nga boo dañoo violé constitution bi du xam lan la. ñoom loolu moo tax ma lay laaj est-ce que da nga partager. non non pour le moment. Mhm. assemblée nationale li mu def. Mhm. wàccut constitution wàccut réglementaire wàccut li assemblée daan def. léegi ñoom fan leen sukkandiku ba ah, ba ba ba loolu ah, boo leen ko laaj leen ko boo leen ko leen ko ñu wax leen ko wax la ko pour le moment li assemblée daan def parce que c'est pas la première fois quand même assemblée def le minute parlementaire <laughs> procureur wala boog juge du huitième cabinet et cetera am le procureur général le procureur de la République mooy saisir le procureur général ainsi de ba ñu bind lettre jox ko ministre la justice pour mu yónnee ko président assemblée nationale pour ñu lever immunité parlementaire député loolee ñu daan def moom lañ def tey c'est-à-dire li as li constitution prévoir règlement intérieur prévoir te ñu daan ko def assemblée loola ah, ba léegi assemblée wàcceegu ko. Mhm. kon bon xëy na ñoom bu ñu gisee leneen nañ ma ko wax pour le moment gisagu ma ko moom. ba tey Mamadou mooy wax moom dafa jàpp ne fu mu toll nii le cas Ousmane Sonko ba ci dugalee affaire yi test ADN rek amatul benn yoon poursuite judiciaire. mais assemblée nationale moo ko war a topp. waaw mais xam nga xam nga xam nga euh, lettre bi bind assa bi procureur bind assemblée national mhm, mhm. loolu gëmm ne mi ngi ci. pourquoi. dama koo gëmm dama gisuma ko mais gëmm ne mi ngi ci gëmm ne mi ngi ci lettre yi dañ lay bind lettre rek ne président assemblée nationale nangam tel juge wala tel qui souhaite la la souhaite euh, la levée de l'immunité parlementaire de tel député pour tel tel kii mu jeex mu faw la ñu yem maa ngi dégg nit ñi ñu bari naan dañ cee war na booli dossier enquête bi. Mhm. ah loolu kenn bu ko def xamul tax. du si enquête bu ñu ko joxoon député yi bu subaa gis ko ci presse bi yëpp. te dossier enquête c'est un médical surtout des ko génne secret médical kenn du ko génne. ah mais gis nañ secret de médical. mais taxul mu war a génn taxul mu war a génn xam nga nit yow journaliste mën koo génne waaye assemblée nationale moom sëñ mhm. dimbali kuy génn kuy violer secret secret médical. assemblée nationale l' mhm. su ma leen procureur du leen jox document yi su ma même assemblée nationale bu fekkoon ne moom lañ ko jox. Mhm. du ko du ko du ko jox député yi. même président bi nga xam ne kii président comi comité bi lettre lañ ko jox mu liir ko. te moom moom rek moo ko yor bu paree da koy téye kenn du ko gis. kon encore une fois la daan am daal ba léegi pour le moment assemblée mi ngi koy respecté loo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi violé assemblée booba dañ ma dégg mais pour le moment. gisaguma fu ñu violé le règlement intérieur. ak ah, yi nga xam ne rek wala exigence mu nekk tey ay exigence yi nga xam ne rek ñi nga xam ne ñooy avocat yi kii di Ousmane Sonko jébbal nañ ko ki nga xam ne mooy le président de l'Assemblée nationale. est-ce qu'ils aussi. ñooñu dañoo yeb Sénégal. ah bon ñooñu peuple Sénégal lañ yeb. ah wu tax nga wax loolu honorable ñoom ñoo la gën a xam ne assemblée nationale ab ab ab ak moom ab ab ak moom. Hmm. affaire levée immunité parlementaire yoonu avocat nekku ci ñooñu li ñu doon def dañuy doon def communication. Mm-hmm. ay mbalag la mais xam nañ ne li ñu def waruñu ko def et je crois que le bâtonnier des avocats dana jël ay responsabilités wax ak ñoom. Mm-hmm. Assemblée nationale c'est une c'est une institution de la République séparée du pouvoir judiciaire et qui digne de respect. Sur les textes. Sur, et, et, et, en dehors Sur les textes. Non non non il, non l'Assemblée nationale est séparée du pouvoir judiciaire. Sur les textes honorables. l'Assemblée nationale est séparée. parce que gis nañu majorité mécanique bu fa nekk lu ñëw day jàll aussi euh, comme lettre la poste aussi honorable. da uh-huh. Assemblée nationale du tribunal comité ad du tribunal avocat ci mbirum tribunal lay wax. ñoom waruñoo bind lettre président assemblée nationale. te man ni ma ko bindee ñaawlu ko wax ko ñu ñaawlu ko laa wax ak ñoom nopp ak gii ne li ngeen def waru leen ko woon def c'est inacceptable ce qu'on fait ce qu'ils ont fait loolu mooy li ma wax bëgg coow li bari su ko defee dëgg yi réer damaa jàpp ne bu fekkee da ngay avocat te am dëgg am na yoo xam ne da nga ko war a weesale sa bopp li ñu def c'est inacceptable ça ne se fait pas ça ne se fait pas dépp avocat amul droit man de su ma doon président Assemblée nationale bu ñëwee du ma recevoir lettre du ma leen tontu hmm. et je mën kii le bâtonnier des avocats pour que lu mel noonu dootu fi amati Sénégal c'est que Assemblée nationale du tribunal commission ad hoc du tribunal Assemblée nationale li mu man mooy lever immunité parlementaire bàyyi député bi mu dem mu dem ci justice boobaa nag ñoom ñoo jóg même bu ñu comité bu dajee bu dajee bi di ko déglu même ki koy dimbali ci liggéeyam maanaam kiy assisté député bi ab député la war a doon comme moom kon waruñu fa woon taxaw cest à que ni may défendre man ne Ousmane Sonko waruñu ko woon a woo te levé wuñ immunité parlementaire parce que assemblée nationale dañ ko war a respecté député dañ ko war a respecté noonu laay ñaawloo li député li avocat yooyu def parce que as avocat yoonam nekku ci mbirum liggéeyu assemblée nationale mm-hmm. après commission ad hoc bi euh, le 17 février incha allah en plénière euh, dinañ xam Ousmane Sonko euh, si son sort est scellé ou pas oh, honorable mu bëgg laaj rek par rapport ak levée immunité parlementaire dafa mel ni si nguuru Macky Sall dañ ko banaliser parce que gis nañ nu bëri ñu lever seen immunité parlementaire. waaw xam nga l'immunité parlementaire day ga immunité parlementaire day gàllaaj gu ñu jox assemblée nationale jox ko député yi. Mhm. pour que justice du saa su ko neexee mu jàpp député. Euh, pouvoir exécutif aussi du saa su ko neexee mu jàpp jàpp député mais est-ce que si nguuru Macky Sall xaar nag xaar nag la tontu la dama la bëgg expliquer dama bëgg nit ñi ñuy waxal mhm. xam li ñuy wax mhm. ba bu ëllëgee sax duñ soxlaati déglu ko ci wax te daañu ko xam mhm. immunité parlementaire li ko indi ci àdduna mooy dafa am barab réew moo xam ne buur ba dafa am ko nekkoon bu député yi ko gën a lakkal suñuy waaj a dem assemblée rek mu jël leen jàpp leen ba yàgg député yi assemblée ba fippu ne léegi buñ jàppati kenn te tàgguwuñ Mm-hmm. loolu mooy law ba ak si Sénégal mooy ñu aar assemblée aar député yi ba kenn du leen sañ arrêté mm-hmm. moo tax léegi li nga xam ne député bu ko defee mënees na ko jàpp te du ñu lever immunité parlementaire lenn rek la muy li ñu wax flagrant délit maanaam sac loxo ci poos mm-hmm. nga xam dañ ko fekk muy jëf wala ba mu jëfee ba nag muy daw nit ñu di ko yóoxu bañ dab. comme le cas Bougazelli. waaw loolu mooy voilà loxo ci poos kooku moom du ñu lever immunité immunité parlementaire kon encore une fois immunité kaaraange yi pour que justice du dal ci seen kaw nu Euh, gouvernement aussi du dal ci seen kaw euh, ma euh, ma nu mu ko neexee maintenant immunité dafa levée immunité dafa am ak levée immunité foo ko dégg rek xamal ne du Macky Sall mooy levée immunité parlementaire parce que levée levée immunité parlementaire ci justice lay jóge ñëw ci assemblée nationale yi yi yi jotagoon am Sénégal yii la benn bi c'était CREI moo demandé woon ñu lever immunité parlementaire ay député parce que dañu leen a jiiñoon ne dañoo njublangoon ci jamonoy nguur Ablaye Wade jamono yi ñu koy def jàpp naa ne Sénégal yi ci d'accord doon bëriwul maintenant li nga xam ne moo am. mais ñooñu instant yi fu ñu. xaaral ma loolu laay bëgg a wax li naqari nit ñi. <laughs> li naqari nit ñi mooy ñu lever seen immunité parlementaire waroon leen a atte. Mhm. ñu bàyyi leen ñuy taxawaalu ça c'est inacceptable loolu day day dafa loolu dafa dafa rafet dara ñàkk respecté assemblée nationale sax loolu da cee bokk. parce que assemblée nationale boo ko waxee ne ko lever immunité parlementaire du a atte député waaye bàyyi mu dem noonu parce que loolu duy beneen bi ci des koo xam ne dafa defoon ci mbirum rey nit lañ ko tuddoon levé nañ fi immunité parlementaire encore une fois assemblée nationale bu doon junni levé mooy ñëw par jour it assemblée nationale li ma gëm mooy daf ko war a satisfaire parce que assemblée nationale war amul sañ-sañu di néewal doole justice amul sañ-sañu def obstruction à la bonne marche de la justice ndax loolu mooy intelligence des rapport entre les institutions de la république kon encore une fois Euh, du jàpp naa ne bu ñuy lim as euh, euh, kii nam tudd rek le kii limu immunité yi dañoo xool a xool lim immunité bu ne la ko waral parce que benn ci immunité yi bokkut ñaar yu jëkk yi yu jëkk ya yi njëkk a levé mooy ñoo xam dañu ne jiiñ ne dañoo enrichissement dañoo am alal ci lu léwu kenn ki ci mbirum ku rey reyum nit lañ ko lañ ko doon topp pour la première fois ci lu ma xam Sénégal moom ñu levé immunité parlementaire député ci pour affaire viol loolu ci Ousmane Sonko la jëkk Mm, ci Ousmane Sonko la jooy li la jëkk ñu wax ba tey si euh, viol bi ak la question test ADN bi nga xam ne ñu ngi koy euh, brandir te ñu gis ne carrément gynécologue bi euh, xooloon na xale bi wax ne si 16 heures yu suivre kii amul benn yoon rapport sexuel ba tey le procureur di insister ni dañoo war a def benn test ADN mais ñoo xam ne carrément question de massage sa massage nit bu la laalee wala sa ñaq bi sa laal ko mun nañ gis si moom ADN aussi est-ce foofu tamit question ADN bi bi aussi du poser problème euh, honorable ay secret médical yu ñu génne ci presse duma ko commenté mais la question test ADN bi léegi nga bañ ko commenté mais c'est bu ñu xoolee rek li ma xamagoon pour le moment <laughs> mooy Adji Seck Adji Sarr porte na plainte Ousmane Sonko foofu laa ci ay test ADN yooyu xam samay néew ci. léegi bu ñu jàllalee euh, Adji Adji Sarr ak i Ousmane Sonko ñu wax ci wàllum test ADN. Ah, test ADN yow man ba ma laalee sax sa ADN. loo bëgg ma wax ko ci waaw d' accord loolu loolu moo tax lu ma ci commenté parce que na mhm. xam nga nag man li may dégg ay ay xam nga damay wax ne fan yii toll moom. Euh, ñi ngi waaj indi vaccin anti Covid maanaam ñàkk yu faj <laughs> yu tax nit ñi mucc Covid mhm. waaye war nañoo ñàkku vaccin anti manipulation. ah gis nga boo suivre bi may wax ba léegi. bi may wax ak yow ba léegi li ma gën a intéressé rek mooy jox nit ñi ay argument ñu mucc ci manipulation manipulation mooy maanaam askan wu yomb a nax nit ñi dañuy jaar ci ñoom ba di leen gëmloo loo xam ne du dara kon encore fa ay test ADN ay waxu docteur du ma ci dugg parce que xaw ma ci dara. <laughs> li ma xam mooy aji Sarr porte na plainte Ousmane Sonko ñoom ñaar li ma gëm li ma jàpp mooy tribunal la ñu war a dem ñu leeral ko. may ñaan yàlla nag Adji Sarr lim jum lim jiñ Ousmane Sonko mu bañ a nekk dëgg. Mhm. ñu wax euh, ci avenir euh, politique kii di Ousmane Sonko yow mi nga xam ne mën nañu wax ne depuis les indépendances yaa ngi suivre bu baax histoire politique bu réewu Sénégal ak euh, yi nga xam ne jaxasoo yëpp gis nañ ko par durant Léopold Sédar Senghor Mamadou Dia ainsi de suite donc sur cette affaire est-ce que mën nañoo wax ne carrément kii di Ousmane Sonko wàllum sympathie am dafay wàññeeku sax. Euh, Macky euh, mbir bi da ko ubbil les portes du palais. waaw bu fekkente ne li ñu ko jiiñ defu ko moom dana ko ba ci dara. Mhm. kon li ma da ñaan mooy yàlla bu mu def li ñu ko jiiñ bu dee li des même boo man pour xam man dama gën vie privée c'est-à-dire même bu fekkoon ne sax day génn xale bu jigéen parce que sama yónnee ci kooku affaire Sonko la ak moom ak boppam maintenant difficulté bi mu am mooy wan seetlu gi mu wan nit ñi. Mhm. ñu di ko dégg ci lu mel noonu loolu moom mën na ko yàq. donc lii est-ce que posé aussi question parce que gis neen aussi euh, kii di euh, euh, sa Seck dafa habitué woon la population sénégalaise bu waxee rek teg ci ay aaya donc est-ce que fii waruñoo def ak le cas Ousmane Sonko bi waruñoo les hommes politiques waruñoo moytu di allier seen ay image ak te lii nga xam ne mooy diine. loolu moo bon la loi sur les partis politiques au Sénégal dañuy tere. Mhm. parti di tuddoo diine. Sénégal nag. gars yi loolu lépp pour pour nax nit ñi rek la ko politiciens yi jubloo. faire du nax nit ñi rek pour wan nit ñi ne man ab jullit laa wala nga ne leen ab murit laa wala tijaan laa c'est-à-dire que président la République pour mu baax du mais mu nekk tijaan taxul mu nekk président bu baax. Mhm. mu nekk murit taxul mu nekk président bu baax mu nekk catholique taxul mu nekk président bu baax. Mhm. président bu baax mooy koo xam ne xam nga soxla askan wi di ko wutal saafara. kon mhm. encore une fois dañoo war a génne di maanaam di tuddoo këru diine di tuddoo waaso muy ethnie di tuddoo région ci politique kooku ay naxaate la malheureusement nag Sénégal day réew moo xam ne dañoo yomb a nax Sénégal dañoo féerutu nax maanaam boo tere ñaari aaya wala ñaari xasaay Sëñ Tuubaa wala ñaari xasaay Cheikh Sida Hadji Malick te di politiciens ñu ne nga waajal nga loolu nit ñi ñoo nit ñi ñoo feebar waaye yooyu ay caaxaan la yoo xam ne dafa war a dakk ci réew mi c'est-à-dire nit ku ci am sa affaire tarixa ba nga bokk sa diine ba nga bokk wala sa ethnie ba nga bokk dañ ko war a da nga ko war sa biir muy sa vie parce que affaire privé la puis Sénégal du théocratie du république islamique kon kuy convaincre nit ñi da nga leen war a convaincre ci li nga seen soxla yi ñu am noo koy safara waaye du jàng ay xasida wala ngay wasifa du loolu c'est inacceptable sax dañ ko war a bàyyi maintenant nag loolu ku mel ne bon Sonko nga xam ne day feeñal ak ak ginéem ak sellam ah su demee bañ ci ko taxal am na foo xam ne bu fa àggee dina ko mën na ko wàññi dara ampleur bi yëpp mën na ko wàññi dara mën na ko wàññi ay li ko indi sax du sekk c'est parce qu'il est l'opposant le plus radical mais en réalité sell gi mu wan nit ñi ñu di ko tudd ci lu mel noonu jàpp naa ne bokk na ci li indi coow li moo tax may ñaan yàlla yàlla bu mu doon dëgg parce que bu dee dëgg xëy na dina wàññi Sonko dara mais politique yëpp lay wàññi parce nag sénégalais pour nitu politique waxati fi lu wér lu nit ñi gëm ci wàllu sell ak sellal dina jafe parce que fi ko Sonko yëkkati dafa sori. <laughs> honorable ñu gis ne mun nañoo wax ne Sonko moo nekk euh, farouche opposant kii di président Macky Sall mais waale waaye si wàllum opposition bi aussi mun nañoo wax ne aussi il n'était pas trop aimé par ses mais gis nañ ne mbir mi ba mu nekkat ne jon rek dafa mel dafa am une forte adhésion de l'opposition derrière ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. gëw ma ne dañoo adhéré ci derrière Ousmane Sonko. da jàpp ne dañoo adhéré contre Macky loolu mooy benn li mooy jàngat bi gën a jub bi ci des am na ñoo xam ne bu ñu sañoon Ousmane Sonko ñu tëj ko bañ man lu ñu mën a récupérer ci mbooloom récupérer ko ah loolu moo daloon Khalifa Sall gars yi doon tërërër yi bañ ko tëjee <laughs> dañ doon jéem a kenn ku ne jéem a récupérer morceau Khalifa Sall vous savez que politicien nag si mm-hmm. ay mbiram moom mooy loolu waaw ah, maanaam cooli cooli du ñu weesook moom tribunal dañ naan xulo xulo xulo xulo pind gars yi ñu dugg ci biir mm-hmm. non non vraiment man jàpp ma ne dañ koy bëgg nañ ko sax jàppale. Mhm. waaw Sénégal maintenant nag am na loo xam ne ja mat na cee jàngat souvent xam nga jàpp naa ni li li Adji Sarr jiiñ Ousmane Sonko naqari na ko. Mhm. waaye nag bu ñu fàttee ne usman Sonko politique am yëpp ay jiñaate la. Mhm. rappelé bi mu fi ne du ñu fay impôt te dara du ci dëgg. ba yàgg mu dem ba yàgg bi mu demee ba xam ne dara du ci dëgg mu ne assemblée du reverser impôt mais loolu suñu yoon yow boo amee salaire ñu dagg impôt bi. ki ko ki ko dagg te reversé ko moo am faute mais yow mi ñu dagg donc on peut dire sur cette affaire c'est l'arroseur qui s'est fait arroser mais bien mu ne mu jël cent cinquante mu ne da ngeen sàcc alalu réew mi la boo ko bu ñu la boo ko fayut da sàcc alalu réew mi moo tax gars yi di indi ñëw lu tax booba ñun ñoom meruñu maanaam indi ñëwuñu ba mu ne député yi duñ dañu fay impôt dañ koy sàcc te ba mu faloo député léegi kenn déggatul wax loolu arrêté la mu doon wax du dëgg bëgg démb dégg nañ ko fii mu ne quatre-vingt-quatorze daf ko détourné mu nekk ba tax mu porte plainte plainte bi delloo nañ ko ko ne ko amuloo sañ-sañu porte plainte non non xaal non moom xamoon na ne amul sañ-sañu déposer plainte ci 94 milliards yi. mais est-ce na fenn aussi. xaaral ma xam nga soxna si. Mhm. Sénégal république du Sénégal. ci yii ma lay limal la tënku la constitution les lois et les règlements mooy joxe ay sañ-sañ Sénégal gii nu nekk. kenn rek moo fi am sañ-sañu topp nit ci détournement de deniers publics muy nam tudd l'agence judiciaire de l'État pas une personne privée Ousmane Sonko loolu mënu koo bañ a xam loolu ñu wax nii mun moom ko war na ko gën a xam kon ba muy porté plainte xamoon na ne plainte bi du mujj fenn booba da doon def politique maintenant grawul nee na moom am na preuve yi waaye na de na créé benn jury d'honneur na woo ñoom Alioune Tine ay forum civil jox leen preuve yi su boobaa Sénégal yi daañu mobiliser pour ñu dal ci kaw ma ma Mamour Diallo en réalité jamono jooju daroon yàq darub nit di politique ci duural waaye li mu doon wax xam ne ne amul parce que amul décaissement de quatre-vingt-quatorze milliards Mamour Diallo jël ko c'est pas vrai du dëgg mhm. amul kon encore une fois la mu doon def moo tax booy def booy lu ñaan euh, maanaam sànni wuy dem du dellu si dayu béy doy na ci sànni booy wax nit lu bon te mu di la ko fay waat boo koy wax na nga ko wax tuuti waaye stratégie bi yëpp mooy duural sosal loolu moo ko di say xëy na tey ji lii ko dal tey ah bu ko fay bor bu ko yàlla fay la ban ko tax bu ko naqaree rek na mooy bu ëllëgee mu topp ci nit ñi di jiiñ ta député yi mu wax dañu sàcc impôt daawuñu ñu ngi ko doon fay ba mu nekkee député léegi kenn déggatul mu wax ko 94 milliards yi bu yoree prévu na ko génne su ko génne wut en réalité waxul woon dëgg dana wax lu ko neex mhm. mais mais honorable euh, parce que sànq yaa ngi ko junj say euh, kàddu le président de la république euh, discours à l'assemblée nationale wala sax mun nañoo wax ne ba mu jàkkaarloo à taskat yi xibaar yi. mu loon wax ne am na ñenn nit yoo xam ne bu leen tëjee kaso dëkk bi yëngatu. ñu euh, voilà ñu gis ne aussi euh, wàllum problème Casamance bi fu mu toll nii mun nañoo wax ne et militaires yi ñu ngi def benn opération bu am solo par rapport ak base yu nekk foofu la ñu gis ne Ousmane aussi. Euh, quoi qu'on dise c'est un digne fils de la Casamance gis ne problème bi aussi ba mu ko ba ba mu feeñoo gis ne ñoom tamit ni ñu ko personnalisé des femmes sont sorties sax te ñu kii est que tamit aussi affaire boobu mun see def naa ko aussi pour bañ a yëngal euh, coow aussi mhm. Ousmane Sonko c'est un digne digne fils du Sénégal c'est pas mais am na fu mu bokk aussi. bokk na Bawol aussi ndax yaayam Bawol la dëkk. mais il s'identifie aussi à la Casamance. Ah, d'accord c'est son problème waaye ni mu dëkkee Casamance la dëkkee Bawol. man Ousmane Sonko fi fi sama yaay juddoo ak fi moom yaayam juddoo sorewut hmm. fi sama yaay juddoo ak moom fi yaayam juddoo sorewut kon ni mu dëkkee Casamance la dëkk la dëkk boobu. mais c'est juste pour attirer l'attention par rapport à la sensibilité de l'affaire maam li ma la moom am na ci mhm. boppam. non na doon sénégalais rek moo gën dégg nga. Mhm, mhm. digne fils du Sénégal moo am solo waaye digne fils de Casamance wala digne fils du Bawol ça n'a pas conscience mooy da ngay delluwaat ci la ma doon naan tarixa diine ethnie. ak région dañ ko war a génn ci suñu langage politique parce que loolu day fractionner dëkk bi loolu laa ci yéen na naa ci mbirum armée bi. certes mais on a nos réalités parce que da ngay gis ne président avec le président Abdoulaye euh, Macky Sall la carrément gestion ethnique lay def ci ci pouvoir bi. waru ko def bu ko ko def. donc donc. su ko defee waru ko def aussi sur cette question de. Sonko su ko defee waru ko def warul def gestion dama ne def gestion ethnique. Mhm. warul def gestion tarixa warul def parce que loolu Sénégal république Sénégal moo ko tere moo tax ñun ñëpp lan war a taxaw mooy doon doomi Sénégal bu ñu xasee doon doomi Sénégal Sénégal yëpp lan bokk parce que Sénégal noonu la taxaw ci république unitaire du république ethnie du république diine du république région Sénégal benn république la maintenant bu loolu jàll léegi ñu ñëw ci mbirum mbirum armée bi mhm. euh, damay damay féliciter mhm. bu baax a baax a baax a baax di ko kañ le colonel Souleymane Kandé ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy def Casamance moom ak officier ak sous-officier yi mu àndal ak homme de troupe yi di ko féliciter di féliciter tous les tous les militaires du Sénégal di féliciter le SEMGA di féliciter waale le chef suprême des armées président de la République parce que li nit ñëpp war a xam mooy république bu moom boppam ñaari armée mënu fa am mm-hmm. Sénégal mënu am armée nationale ak une armée du MFDC sur un millimètre carré du territoire su un millimètre carré de bi ci des mooy l'intégrité du territoire national est non négociable cest à que Sénégal nekk benn réew kooku kenn waru cee discuter ba ma félicité gërëm général ba pare ki colonel kande ba pare di ko ñaan yàlla nekk maréchal moom ñi mu àndaloon liggéey boobu li ma jàpp mooy guddi yi ñu toll moom gouvernement li mu war a def mooy arrêté suspendre maanaam bàyyi lépp négociation avec le MFDC civil comme militaire structure ya ñu karee woon pour di négocier ñu dissoudre ko ñu déclarer le MFDC organisation terroriste. ah bon la partition du Sénégal est pire que le terrorisme terrorisme jusqu'à présent defagu Sénégal loragu Sénégal. mais loolu est-ce que bu ñu ko defee nekkul rek di rajouter de l'huile sur le feu non non non non non rajouter de l'huile sur le feu c'est de négocier avec quelqu'un qui veut la partition du Sénégal loolu moo inacceptable c'est ça rajouter ajouter de l'huile soo sont des gens qui ont, qui ont entretenu cette guerre-là pendant très longtemps, sous prétexte de négociations, rare l'unité du MFDC. Un bon rebelle, c'est un rebelle mort. L'unité du territoire national, l'intégrité territoriale nationale, la cohésion territoriale, la seule présence d'une armée, l'armée nationale sur le territoire national est non, sont non négociables. Encore une fois, en hommage au colonel Souleymane Kandé. Euh, loolu mu bëgg a def Casamance nga xam ne en lan lay tekki mooy fas na yéen maanaam sant mètre carré bu ne ci Casamance nit sañ faa dox guddi so faa dox bëccëg ni nit sañee doxee fii ci Almadi wala fii ci nam euh, Ouest Foire wala wala wala Dakar Plateau wala ci peñum Touba il ne peut pas y avoir une région du pays où nit sañu faa doxi soxlaam parce qu'il y a des qui l'empêchent de le faire je félicite et je remercie encore le colonel Kandé pour ce travail excellent et je souhaite que le président de la laisse l'armée nettoyer définitivement la Casamance de toute rébellion et je l'armée en man euh, mën na mën na ko d'accord mais honorable am na loo xam ne aussi attiré na sama attention par rapport ak l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko gis neen ne on a comme impression que Adji moo nekk parent pauvre dans cette histoire gis neen ne euh, structure yi nga xam ne ñooy war a sax euh, taxawal jigéen dañoo sax désolidariser par rapport à Adji Sarr ah, mooy aji aji amul ndey voilà donc est-ce que loolu ça ne pose pas problème euh, parce que déjà présomption boo innocence bu kii di Ousmane Sonko am moom tamit la fille aussi moom la am aussi problème bi muy jur am na lu gën a garaaw lu muy jur mooy désormais bu ñu defu ndànk euh, maanaam li ñu li sëñ Mor Mbaye di wax tonton saay-saay comme fi wéyola doo ko ñemee wax c'est vrai li ñu yàq aji saa fan yi psychologique c'est-à-dire il faut être très solide ëllëg pour bu ñu la bu ñu la violé nga ñeme ko wax mais est-ce aussi ses surtout bu la part que gis nañ ay audio yu fuité aussi surtout bu la kilifa violé mhm. nag loolu moom wax dëgg yàlla kilifa yuy violé moom bari na lool moom c'est vrai c'est-à-dire loolu moo ci mën a jàng yéen jigéen ñi loolu ngeen ci war a jàngee te les gens n'osent pas en parler parce que mbir yu mel ni moo tax aussi non mais na dañoo ragal euh, euh, waa waa passé saaga leen ci réseaux sociaux yi lu mhm. ñoom loolu daa bokk seen lu ñu man loolu moom waaye xam nga gone guy saaga morom bàyyam moom mhm. war naa mere bàyyam parce <laughs> gone guy saaga moroom bàyyam war naa mere bàyyam parce que bàyyam yoru ko hmm. et je ne suis pas sûr que doomu Ousmane Sonko yi daañu saaga ci réseaux sociaux yi hmm. kon ñoom bu ñu defal Ousmane Sonko loo xam ne ay doomam duñ ko ko defal hmm. waaye nag gone gu bàyyam gone gu saaga mag moroom bàyyam moom xamal ne bàyyam la war a mere ah war sa mere ki muy saaga bàyyam la war a mere encore une fois effectivement c'est-à-dire euh, dana jafe désormais jigéen bu ñu fi woo violette yi nga ko wax parce que bu surtout bu la kilifa violé ndax da ngay jàpp ne li ñu teg Adji Sarr moom la ñuy teg ça va créer une omerta définitivement ci affaire viol c'est inacceptable xam nga autant man dama jàpp ne Sonko defu ko mais autant Adji Sarr aussi c'est une citoyenne de la République dañ ko war a may mu dem fu ma xam ne doone benn cest ñoom ñaar dañ leen war a yemale waaye boo xoolee même les organisations mais nag en réalité gis nga au Sénégal d'une manière générale les organisations féminines c'est des hypocrites da cee bari. ah da cee bari. rappelle-toi en 2014 quand la la liste de Touba biñ ci élection législative bi ñu ko locale yi bi ñu ko indee te bi amuloon jigéen ñoom ñëpp kenn ñëmu ci woon wax ñëpp a waaf. Mhm. man kese ci yëkkati woon sama kàddu te loolu la dégg naa ko. mais ginnaaw moom parti na plainte xëy na am na fu mu ko tër parce que de façon moom mënut a am dëgg ci Ousmane Sonko lu dul mu am preuve je crois en grande partie moom moo war a indi bërëb yi ne Ousmane Sonko daf ko def li muy wax waaye le fait que ñu single ko maa ngi dégg sax benn bis fan yi benn ilimaan mu naan xale bu jigéen boo xam ne xamuñu ndeyam xamuñu baayam euh, war su ko dégg jugement bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo xam ndeyam ak baayam kan moo xam ndeyam ak bàyyam ñun suñu yoon daane ci ndey bàyyam ak ak <laughs> ndey ak bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que maa dégg benn nit bu may wax ak moom benn mu naan ma yonent bi moo nu gën ndey ak bàyyi ma ne xanaa yow la gën ndey ak bàyyi <laughs> man sama ndey ak sama bàyyi ñoo gën ñoo gën ndey ak bàyyi yonent bi ah. parce que man sama ndey ak sama bàyyi ci l'islam lañ judd ndeyam ak bàyyam judd wuñ deewuñ ci l'islam hmm. c'est que Sénégal ñoo ñoo maanaam ñu c'est grave comment un imam peut traiter de ce point nit nit hmm. maanaam xale bu jigéen bu ñu xamul ndeyam ak bàyyam hmm. c'est que Sénégal moom dañoo yaakaar ni jigéen moom tëddoo ko rek ak liggéey loo ko la am ci kër. Mhm. bañ nañ ko sax bu ñuy tagg jigéen lañ koy taggee mooy nangu mu nangul jëkkëram. voilà mooy lay wi ñuy wut naan way liggéeyam day añub doom ba ba ko caaxaan yooyu. wala ñu lay forcer ci sëy boo bëggul. mooy wax xam nga waxu caaxaan gën a raw liggéeyam day añub doom da ngay gis ci genn kër koo xam ne ndey ju am ñetti doom wala juróom kenn ki am lu bari kenn ñi des amuñu dara mhm. kon xanaa ñi amul dara daf leen a liggéeyalut. Mhm. loolu mooy ay maanaam pexe la yoo xam ne góor ñi ñoo ko wut pour di ko noter jigéen ñi dinañ ko dominer maintenant nag c'est que loolu li ko mën a saafara mooy ñu góorgóorlu ba jigéeni Sénégal jàng ba raw góor ñi gis nga bu ñu pexe ñi ëpp jàng ba raw góor ñi. lii lay ñu solidaire entre nous aussi. même bu ngeen solidaire gis nga ba réew yi bu jigéen ñi jàngee ba raw góor ñi comme Tunisie xam nga Tunisie boo fa demee 69 pour cent des femmes médecins euh, des médecins c'est des femmes. ah bon pour cent des pharmaciens c'est des femmes. Parce que vous, le niveau d'instruction des femmes est extrêmement élevé. C'est le combat qu'on doit mener pour libérer, pour l'émancipation de la femme. Moi, ñu jangal ko. Ba mu xam li góor xam. Ba mu xam li góor xam. Xam nga ne loolu dal ko yow bu la dal dana demé nen. Mm. Waaye ki xamul dara, yaayam faatu na, baayam xëy na xam néew ci dëkk bi wala boog néew seen néew Dakar. Ñu bàyyi ko mu ñëw Dakar mu ranke. Dem ay nit jël ko di ko ko bës loo góor guddi. <laughs> Mais c'est grave. Ça, non, Koo xam ne yaayam na. bàyyam nekkul Ndakaaru mu ñëw di ñu di ko fay salaire de misère ay nit di ko utiliser loo góor guddi est-ce que ñooñu ko doon def loolu daañu ko def seen doom mais war naa naqari jigéen ñi tey jii dañoo waroon a mobiliser pour xool les salons de massage jigéen ña fa nekk ñu tëj ko parce que loolu c'est une prostitution déguisée ah bàyyi sa doom muy muy mu nekk di bës góor guddi koo xam ne du jëkkëram du magam parce que loolu lay liggéey bu ko deful duñ ko fay parce que yaayam nekku fi bàyyi nekk bàyyam nekku Ndakaaru mais sëñ bi loolu c'est inacceptable loolu au lieu mu naqaru nit ñi ñaa way jigéen joo xam ne xamuñu ndeyam xam kan lañu xam ne république tur ah ndey du fa joxe ndey du fa xañe l'islam gii nu bokk lay tax lay raw jullit yi rawaate du ci seen ndey du ci seen bàyyi seenu gëm yàlla la aju kon ab ilimaan bi wax loolu moom xawma normalement dans n'importe quel pays normal kooku waratul woon dugg ci jàkk ba dafa jiite mhm. c'est inacceptable bu ma euh, dégg dana xam ne moom laa dama leen a bañ a indil jafe-jafe rek <laughs> honorable euh, mu mel ni comme euh, affaire Ousmane Sonko dafa muur l'essentiel mu nekk xeex bi nga xam ne ñu ngi ko songu mun nañu wax ne léegi mu mat at wàllum Covid bi tey nga gis ne mun nañu ne docteur Bousso sax dafa def benn alerte par rapport ak cas yi nga xam ne nu muy yokkoo cas grave yi nga xam ne mu jàpp na ne benn cas grave rek boobu benn cas contaminé mun na jël yokk douze personnes. hôpital yi ñu ngi débordé euh, nit ñaa ngi gën di faatu est-ce que war waruñoo dem vers l'essentiel aussi. non non lii essentiel la xam lii essence du essentiel national lii nga wax ni waaye essentiel la ci Adji Sarr ak Ousmane Sonko Ousmane Adji Sarr mu jàpp naa ne war naa bëgg mbir mi ñu euh, ma fekkee dañ koo def loolu ñu ñu sanctionné Ousmane Sonko Ousmane Sonko jàpp naa ne aussi bëgg nañu xat ñu ñu seetalu deram et puis le ñuy wax loolu teewul nag ñuy wax ci mbas mi. xam nga nag aussi dafa am politiciens stratégie yu ñu yoo xam da ngeen ma bëgg ngeen parce que yéen da di yor en général vous utilisez le langage des politiciens. Mm-hmm. le langage des mooy lii ñi nga xam ne bëgguñu ci wax ci dañ fi réew mi toll jafe-jafe yi pourquoi ñuy wax lu mel nii non. c'est-à-dire que xaaral ma la le fait mbas am ci réew mi. Mm-hmm. teewul bis bu yàlla sàkk nit ñi porté plainte. Mm-hmm. mbir mi ba mu amee ba tey kenn dafa mel ne Covid dafa jeex. déedéet Covid jeexul kay Covid jeexul gars yi joxe nañu résultat yi ci bëccëg <laughs> man de bi ma ñëw dama takk masque yaa jàkkaarloo bee tax sax defuma ko yow maa ngi sans masque ma. ah waaye donc wala problème non non non c'est-à-dire euh, maanaam euh, maanaam gendarmerie muy police ak gendarmerie ak justice ñoom duñu fajkatu Covid. Mhm. fajum Covid ci docteur yi ñoo koy def. ginnaaw gendarmerie police ñoom li ñuy faj mooy boo buñ la tooñee boo ñëwee boo porté plainte foofu ñu toppatoo ko ak justice. ñooñ ña ngay def seen liggéey ñoom docteur Bousso nañ def seen liggéey rek mooy alerte nit ñi wax danse yi gën leen a song soññ ci ñuy takk masque yi te raxasoo gel mhm. parce que nag wopp ji moom dina fi yàgg de. ah bon ay sa waay une épidémie une épidémie chronique. da na dara pour pour ah, ñu ngi def sax xëy na pour mu dem waaye mën na fi am fukki at. Ah. léegi xam lan lay war a jàng. ak vaccin vaccin yi yow di nga vacciné wala doo ma bu ñëwee man d'accord na ma ma ci ka vacciné wu. ah man kese ma vacciné wu <laughs> ñu may ma ñu def ma en observation pendant deux jours ma ma wax ñi may docteur yi mi les signes cliniques uh-huh. su fekkente ne vraiment amul benn risque mm-hmm. ñu vacciner sénégalais yi su fekkee am na risque ñu yem foofu kon accepté nga doon cobaye bi daal je suis prêt je suis le candidat et je le dis ici solennellement na ma bàyyi ma jëkk ñu jëkk maa su suñ ma vacciné ba noppi ñu mettre ma en quarantaine pendant ah, pendant quatre jours pendant deux jours en observation pour étudier la réaction de mon corps par rapport à ce vaccin-là su fekkee vraiment ça ne comporte aucun risque su boobaa ñu vacciner Sénégal yi je suis candidat et je veux être le premier Sénégalais à être vacciné. déclaration exclusive sur les antennes de ah, le cobaye du Sénégal premier le premier le cobaye pour tout le peuple sénégalais. ma njëkk a bu ñu ma ñàkkee ma noppi ñu may ma ñu may deux jours di ma xool ndax bu ñàkk si ban jàng ban jeexital lay am ci man. su fekkee ñu vacciner Sénégal yëpp may bawaan maa ngi ñaan Sénégalais bu ne nañ la vacciner. Ah, euh, merci beaucoup honorable député Moustapha Diakhaté je rappelle que vous êtes ancien président du groupe parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar yow moom vous êtes un habitué des lieux fii sama kër la neex la sa à chaque sama kër la maa ngi lay gërëm ci invitation bi ah comme ni ma ko déparé woon nag ñaan yàlla waxtaan wi ñu wax ku ci dëgg maanaam euh, gis nga soxna nga ci yàlla dama dama bëgg mucc mhm. bëgg Sénégalais yi ñëpp mucc ci far tax doo wax dëgg contre tax doo wax dëgg c'est-à-dire bu nit bu ko dara desul ci gémmiñam lu dul wax lu dul dëgg na noppi waaye nag Sénégal malheureusement mbir bu xewee nit ñi du ñu waxee du ñu sa du ñu seet dëgg ci la ñuy wax ca contre walla far moo nekk mooy nekk laltaayu seen wax am réew du doxee noonu am réew du doxee noonu ko encore une fois maa ngi lay remercier baax comme li wax toujours rek man ginnaaw damaa tànn di wax ak askan wi di waxal askan wi ku ma jox micro mën nga dimbali. kon yow laa man maa la war a yoreel ngërëm. jërëjëf merci pour ta disponibilité merci aux internautes yéen ñu doon topp di ñu suivre suñu page Facebook euh, Sénégal 7 wala si YouTube bi euh, Sénégal 7 j'étais avec euh, l'honorable député Moustapha Diakhaté on se donne rendez-vous demain incha allah beneen numéro ak it beneen invité bu ñu fi nar a dalal pour continuer rek waxtaan bi d'ici là prenez soin de vous et restez en compagnie de nos programmes merci.